sunugal24.net soyez le premier à informer sport société actualité politique culturelle interview l'information à sa juste valeur c'est ici même sunugal24.net gi Fatima Fall su ma jumul daf ma propose daf ma posé benn question wax ma ni ma lan la jigéen ñi représenté si sama programme man bind naa siiwal ko wax ni jigéen ñi ndaw ñi ak jigéen ñi ñooy le fer de lance bi nga xam ni si ñoom laa bëgg sukkandiku pour développer ëllëg Sénégal nan laa koy def ndaw ñi dama leen jàngal métier jot na ñépp xam ni sa àddina bi ku fi bëgg jariñu ku fi bëgg faj sa soxla il faut nga am métier sénégalais bi nekk war nañ ko dimbali mu am métier waaye bul yam rekk si dimbali ko mu am métier fexeel ba nga xam ni métier boobu moom dana si man jëfandikoo métier boobu dana si mën liggéey loolu lu am solo la jigéen ñi dama compte microcrédit microcrédit dimbali na leen rek ba ngeen man faj seen tuuti soxla waaye war na leen yóbbu si ay formation war leen jox ay financement yoo xam ni financement yu takku la financement yooyu man ngeen man def activité yu am solo lancé wu leen des fleur mais jigéenu Sénégal dañu am jom te dañu ñeme sonn kon il faut ngeen jàppale leen il ngeen jàppale leen déjà si produits pétroliers yi suñuy ressources danaa jël fonds yu am solo affecté ko aux jeunes affecté ko aux femmes waaye bala noo yàgg foofu bala noo àgg foofu parce que deux mille vingt et la lañ wax wala deux mille vingt ma wax leen nag contrat pétrolier yi dama leen di renégocier il faut que ma renégocier leen seet lan moo si nekk. wut ay audit ñu xoolal lu contrat yi ñu seen xam-xam màcc si loolu seet ba Sénégal gis ci seen bopp dama koy renégocier léegi fonds yooyu avant ñu àgg sa bu leen jàpp ni maa jëkk wax ni damay supprimer conseil économique social et environnemental maa jëkk wax ni damay supprimer le haut conseil des collectivités territoriales maa jëkk wax ni damay supprimer la commission nationale du dialogue des territoires lépp loo xam ni lu ko tax jóg mooy di neexal ay nit wala di jëmale kanam sa politique loolu dama ko fee jële assemblée nationale doy na sët mën na def liggéey boobu xaalis boobu nu dajale woon di ko fay institution yooyu nga xam ni nekkuñ fi lu dul pour neexal seen partisan clientélisme politique xaalis boobu lay jël séddale ko ndaw ñeeg jigéen ñi seen projet pour jëmale kanam Sénégal Saliou Gueye su ma juumul moom ma posé si ay questions yoo xam ne jël naa engagement bi ma demee Kaffrine man benn juste justice de proximité laay wax kon jaaduwul ñu soxla casier judiciaire di jóge dem dem ba Kaolack pour lijjanti ko il faut ñu fexe fu nu nekk. justice am fa structure bu ko mën représenté tu xasee ba am foofu joxe kayit dana dana yomb loolu nag il faut ñu moderniser justice bi xam nga justice bi ni moo doxee mooy ay registre la dem di seet pour man joxe ay casier judiciaire lépp dañ ko war informatiser foo war man nekk Sénégal sax war nga jug fii dem si justice su dakaar yaa ngi dëkk Kaolack nga joxe say kayit nu war nu war la man jox cas judiciaire mais am na ñoo xam ni duna am concours dëkk dakaar bala noo mën faj seen soxla il faut ñu dem ba Kaolack il faut ñu dem ba Ziguinchor il faut ñu dem ba Ndar loolu war na jug si monde bi nga xam ni mooy la monde de la modernité fi nga nekk. fi nga nekk war nga man faj sa soxla kon loolu minimum la te justice moo war moderniser wu te jël naa engagement boobu ni incha allah daanu fexe ba justice moderniser wu li nga wax si yoonu Kër Nganda jël naa si engagement parce que gouvernement bi jëloon na si engagement yu wóor jox leen ay date te réaliser lu tax man may mener la bataille des infrastructures la bataille des infrastructures dañ koy mëne parce que loolu mooy porter la production mooy développer gox yi nga xam ni gox yi nga xam ni amuñu yoon moo tax duma jël nag ay infrastructures yu mag na ay terre di ko favoriser ba pare nag raay bi di nelaw yoon amul piste de production amul leneen ak leneen ku jëloon huit cent million dundaleel raay bi dundaleel ay piste de production jàppaleel dëkk yu yi soo ko defee loolu sénégalais yi daan si gis seen bopp beneen question bi bi ma posé mooy bokk tarixa il faut sénégalais yi man def la part des choses man wax naa ni danaa ko fii danaa créer un ministère chargé des affaires religieuses lu tax dama xam ni diine ñor na Sénégal te lu mu mën doon diine valeur yi moo jël diine valeur yi moo jël di ko di ko mettre en bandoulière rek loolu mën na am njariñ pour sénégalais yi nit mënula wax ni la jullit àqam laa ba pare di luubal xaalisu réew mi nit mënul wax ni jullit àqan laa di jaay doole moroomam wala katolik àqan laa di di jël di jaay doole moroomam loolu mooy valeur yi ñu soxla ñun parce que Sénégal nag fi ñu toll il faut que nous revenir sur nos valeurs li fi xew si juróom-ñaari at lu nu amul benn valeur bu nu dëgg bu nu dëggaatewul amul benn amul benn wax leen ma rek ban valeur moo fondamentale société sénégalaise moom ka te nguur gi fexe na ba ñëpp dëggaate ko kenn gëmatul dara lu dul diw mooy sama xarit may xaritu diw pour man jariñu may frère diw may doomu diw may nangam diw loolu nag valeur yooyu man teg tax na li tax mu bëgg jàppale diine mais am na aussi beneen problème nan ngeen di wax ni da ngeen di régler les problèmes les problèmes yi nga xam ni mooy concerné xale yi yalwaanu mbedd mi te jàppalewuloo daara yi organiser wuloo daara yi bàyyi ku mu neex rek koo xam ni sa xëy na alxuraanam mokkul mu ñëw fii ni sëriñu daara la ubbi néeg ñu jox xaalis mu jël ay doomu jaamul di leen yalwaan kooku tànk que problème boobu te si biir administration bu jubóog kilifa diine yi jubóog sëriñu daara yi foofu rek nga ko man régler yamul foofu sénégalais yi doo leen bàyyi rekk nu yaakaar ni jàng alxuraan jàng ak xam-xam loolu doy na si diine déedéet nit day am métier yonent yàlla daawuda forgeron la woon te yonent la gën gi mbindéef yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa dafa doon sàmmal Xadija kon il faut nit ki am métier si biir daara yi dama fa bëgg dugal jàng métier bokku jàng alxuraan jàng xam-xam am métier ëllëg nga mën liggéey jariñu loolu yëpp mais teewul nag état bi relation de politique politicienne entre état ak këru diine yi dafay dañ état day toog si wàllam wàllam mooy uuf ñépp ku gëm ak ku gëmul uuf bépp sénégalais jox Sénégal bi nekk cër doon un état laïque waaye nag nga jàppale loo xam ni sénégalais yu bëri ñoom seen mbir la jàppale école catholique jàppale daara yi jàppale église yi jàppale jàkka yi jàppale yépp ñu bëri te nag aussi am na loo xam ni am na solo Sénégal il faut pas que nit ñi am hostilité jëmale ko ci diine rek Sénégal su fekkee ni sombrewul dans certaines situations li si diine def bëri na dama koy assumer soo gisee islaamu Sénégal du un islam terroriste parce que c'est un islam confrérique dañu am kilifa ñeneen ñi nga xam ni islam boo xam ni dañu dépendre su d'autres forme facilement dañoo tomber dans le terrorisme mais nag kenn du jël favoritisme amul kenn du jël benn confrérie di ko teg ci beneen kenn du jël benn diine di ko teg ci beneen sénégalais yépp yam man li ma dund te ma nitu yoon te gëm que mooy l'égalité de tous devant la loi et devant les privilèges de l'État loolu laa gëm kon li laa tontu ci question yi ma posé woon ah j'ai oublié l'architecture je désolé c'est une question importante d'autant plus xeex naa loolu ak yéen j'ai été ministre de l'habitat je me suis battu ba fexe woon sax soo laajtee en 2002 organiser na ay rencontres yu bëri entre le gouvernement et nos architectes bëggoon ñu jàppale leen parce que man duma populiste mais ku gëm pri ku gëm ku gëm préférence nationale la lu tax ñun amuñu doole lu nu am as na nanu fexe ba sénégalais yi am si tuuti cër mais sooy jël ñoo xam ni bitim réew ñoom ñooy jël suñu xéewal yi fi am suñu jumtukaay yi fi am jël lépp jariñoo ko jël lépp yóbbu ko bitim réew kon ñun duñu développé wu mukk ni ma ko gëmee si wàllu marché des services yi gisuloo tey régime bi mu ngi damu di wax croissance croissance mais croissance bi soo seetee li ko porté li mu ëpp ce sont les industries de service te les industries de service presque étrangers yi rekk a ko yor moo tax croissance bi joxu la liggéey joxu la nga lekk joxu la nga naan joxu la nga gis sa bopp kon nag seen bataille la bataille des architectes danaa ko mener avec vous comme ancien ministre de l'habitat pour que ëllëg

sii si la Sunugal 24 point net Sunugal 24 point net soyez le reportage interview l'information à sa juste valeur sii si la Sunugal 24 point net